dafa ñu mën a wax ci moom lu bari ci anam yu wuute xam nga jëmm la joo xam ni sëñ Tuubaa da daan wax ni ku la gën ku la yar moo la gën ku la gën ku la yar moo la gën daawul wax ku la jàngal ku la yar rek la daa wax kon sëñ Saaliwu Ture dafa gën ku ko yar ndax kuñ la wax ni sëñ Saaliwu lañ ko tudde ginnaaw juddu bu rëy bi nag xam ni sëñ Tuubaa sol na dàllam seeti baayam nga ko kon ginnaaw juddu bu rëy baag mbokkoo ga mhm. dafa gën ko ko yar sëñ saali woo ko yaral boppam mhm. ñu dëppee ko sëñ saali mhm. sëñ saali woo ko jàngalal boppam am na diir bu mu ko génn rek muy ba mu nekkee njaareem ci sëñ moor mbay si sëñ mouhamadou dem nga xam ni sëñ muntaxaa seere na ñun ñaar nekkandoo nañ fa keroog la ñu fasante kóllëre man ak moom booba ñun ñaar ñu nekk ay tuut tànk di nekki ndaw ñu ànd ànd bu rafet sañ mun Muntaxa àgg na ci wax ni mhm. booba de am na loo xam ne gisuma ko sama bopp moom gis na ko ci mhm. te lam ci gisoon daan ma ko junj mhm. maa ngi door a am yàqin ci loolu toog ci nga xam ni kon seen ànd moom sëñ Muntaxa joxoñ nanu ko ci mbaaxam waaye bi ko mun Muntaxa di joxoñ it fekkoon na mag ñu joxoñ ñu ko ndax bàyyi Saliou Touré dafa gën ku ko yar muy sëriñ Saliou sëriñ Saliou jàngalal na ko boppam yaral ko boppam saxal ko ci këram nag di ko sant yoo xam ni ah bari waawul ku mu koy sant. Mhm. dem na ba li ñuy dunde ci kër gi dépense am daana ko teg ci loxoom di ko jox. Mhm. te defe naa loolu yombul. te loolu yombul de. sëriñ Saliou àggoon na ci moom di ko tëralal bind. Mhm. ba mu doy ko mu koy booloo ki ndonga mu leen di tëralal bind. moom sëñ Saliou Touré waaw ngir li sëñ Saliou def ci moom mu koy def ci ñeneen. yaral ko boppam ba jikkoom doy ko. muy jëmm joo xam ni li sëriñ Touba xaadimu rasul radiyallahu anhu wax ni. innama ijlaalu aalimin amal ijlaalu rabbil arsi fii ma qad nuqil innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fii ma qad nuqil ca biir nëx ju xadaa il xaaj dañ coobaa nee na maa ngi leen di xamal ni màggal boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam moo màggal sunu boroom noo yem ay wàccuwaay déggin lay laaj nag mhm. boroom aras saa boo màggalee borom xam-xam bu jëfee xam-xamam mhm. màggal nga yàlla ndax yàllaa teral boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam dañ mhm. tuubaa ni innama ijlaalu aalimin amal ijlaalu rabbil arsi fii ma qad mhm. képp ku màggal borom xam-xam boo xam ni mu ngay jëfe xam-xam ba mu am mel nga ni ku màggal borom aras sunu wéjur wii di boroom xam-xam bu amul benn contestation boo xam ne borom xam-xam yee maandu yëpp. ñoo nangu maase ni ak am xam-xam. waaye mu jëfe xam-xamam. mësoo dégg ci waxam. wax ju ma jaayee benn taalibe lu ma neex la ci moom. déedéet bokkul ci sëriñ buy jaay taalibeem. wala mu koy far ci li ko neex. saa su waxee ci dëgg la lay delloo. ndax xulil xaq min rabbikum. yàlla moo ne yarant bi waxal dëgg. mu ngi jógee ci sa borom. yàlla moo moom dëgg mhm. sëñ Tuubaa wax ni mhm. alxaqu saabitun mhm. wa amal baatilu fa in ala fa zaahiqun wa saafilu ba tey ca nax ju xadaa ilxaq nee na dëgg dafay sax lu dul dëgg nag bu demoon ba septième asamaan ñu koy séentam du tere bis dina màbb ba ñëpp xam ne du woon dëgg neen la woon kon dëgg ànd kook nit rek mooy dem moom mu soxla dëgg di dund dëgg. Mhm. léppam di dëgg. Mhm. nga xam ne taalibi bu mu àndal mosoo dégg ci waxam mu jaay benn taalibi. déedéet mhm. jaamu ji leen yàlla leen di wax muy li sëñ Tuubaa digle. topp ji leen sunna muy li sëñ Tuubaa digle. liggéey leen te bañ a yàq muy li sëñ Tuubaa digle. fonk leen seeni wéeju na ngeen jub di wax dëgg di ko jëf te mu ñor leen. lépp loo xam ne ay xoraafaat la mhm. ay tappaleek ay yuñ ci boole te bokku ci mhm. dalay wax ni lii bokkul ci yoon yi dégg nga vidéo bi ñu teg léegi mooy mhm. wax ni lii xamuñu ko bokku ci lu ci bokkul da koy dénoncé kon jëmm la joo xam ne dëgg rek a ko ñor jaamukatu bi yàlla la ba fii mu toll ci mage ñépp xam nañu jullikat bu mag la fu mu toll mu ngi naafi la xaritu alquran la dundam yépp foo ko fekk mu ngay kaamilam di jàng borom xam-xam la boo xam ne saa su waxee kàddo kàddoom ñépp jariñu dëgg la te saa su waxee jariñ ñëpp. dëgg la ni Serigne Touba yare njabootam ci lañ ko yare gis nga fulku bee ñuy def ca njaareem. Mhm. noonu la ko saxale ca Thiès. Mhm. woo ñuy jàng fulku na ko sëñ Muntaxa di santaanee ca njaareem jiite ko. Mhm. ñu la koy jiitee ca Thiès. nga xam ni li fi Serigne Touba bàyyi muy ndonoom ca loolu rek la nekk. làq na ngërëmu Serigne Touba ci bu wér. kenn dul nattable. am na ngërëmu wéejuram yi. ndax bu ñu fàtte ni. Baye Saliou Touré 1980. ci la ko. njabootu sëñ Touba gi yebal. Mm-hmm. te boobu sëñ Abdoulaat mooy sëñ Touba. Mm-hmm. waaye daa wax sëñ Murtada. Mm-hmm. ak sëriñ Saalix. ak sëriñ Chouaïbou ñoom ñëpp a ngi fi boobu jamono 1980. mu wax leen ni damaa bëggoon yéen ñëpp ngeen xool ku leen doy ci Thiès. ñoom ñëpp ñu xalaat boole ci seen xalaat. ñu ba sëñ Saliou Touré doy na. bu ko fa yebal de dana taxawu taalibe yi ci njub ci maandu ci jaamu yàlla ak liggéey ak taaral yoonu murit du fa def dara lu ñu xeebe yoonu murit ba ñu ñëwee ba sëñ Abdoulaat ni leen tànn ngeen ku ku seen xel dem mhm. ñu ne ko sëñ Saliou Touré mu ne man tam fekkoon ngeen moom laa tànnoon mhm. waaw ku ñeenti doomi sëriñ Touba boole tànn la nga doy leen ci ñu teg la ginnaaw bi la sëriñ Touba sëñ Abdoulahat tànnee mhm. teg la fii ci Thiès 1980 ak léegi ay fan la loolu 41 la mu nekk ko ci Thiès te man nga ni zéro faute boo demee Thiès ku fay jox ci diina yëboo ko ñépp a ko respecté këru diina yépp a ko fonk alaaxa bi mu am ak waa Tiwaawan am na lu ma ci xam ndax Tiwaawan laa yaroo da ngay gis ñoom sëñ Cheikh Tidiane si almaktuum daan ko seet si mu leen di seeti mu rafet lool sëñ Abdul Aziz si al ibnu noonu la demee woon ak moom sëñ Abdul Aziz da baax wéy juróom bu tedd wa noonu la demee woon ak moom Tiwaawan noonu lañ ko bëggee waaye Njaasaan noonu lañ ko bëggee soo demee waa kër sëriñ Ahmad Muniru Njëgéen noonu lañ ko bëggee noonu la ko waa Cana ba soppe mhm. kon këru diine yi wër Cees yëpp mhm. foo ci dem rek jox nañ ko ma mhm. jox ko cofeel te meloom moo ko may ndax dafa tënk ci li sëñ Tuubaa jàngale musu koo wàcc ñu teg ci bët du ci kàddu du ci doxalin du ci waxin du ci njabootu boppam gi mu yàlla dëgg la doom ju mu am jàngal na la yar la teg la ciw yoon kon daal lañ koy ñaanal sëñ Xaamidun mooy mu yàgg fi te wér jàmbaari sëñ Saaliw la jàmbaari lislaam la jàmbaari sëriñ Tuubaa la